Uras Info Ribari Gao. Info l'info à temps réel Uras Info du notre force le traitement de l'info xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim Baye Niass muy Cheikh Mouhamad Mahi Cheikh Ibrahim Niass tey jii sa njabootu bopp ñoo la ndax Baye moom moo doon moo suñ sëriñ moo ñu jàngal ne jiitu yàlla di amal benn mbind Mouride moo ne yónnent boobu noonu mooy moo doon lim laa waay ni yoomul ay Muhammadin salaasiru bi ay tani war waay tey jii ñi ngi ànd ak délégation boo xam ne ñi ngi fees kër gi fees mbedd mi ndax xër boo xamante ne nii ki nga xam ne moom la sa njaboot ci bopp gi nga xam ne ñoo dëkkee ci dëkk bi ànd ak muy Mouhamed Ndiaye Rahma ñëw fii ziyaare si la ndokkeel la ci guddi juddu yonent bi nga xam ne guddi dara ànd ak le coordonnateur ki nga xamante ne nii mooy Pape Ndour bu ma ko limee lim naa ñëpp ci jigéen ñi tamit mi ngi ànd ak délégué mi ngi ca ñu ngi ci ànd bu ma tuddee tudd naa bu ma tuddee ndey abi tudd naa ndaw ñi sëñ bi euh, foofu laa ko mën a émale ñi ñi ngi déggul seen tur ñu jéggal ma bu ma sañoon danaa tudd ñëpp waaye sëñ bi tey Mouhamed Ndiaye Rahma ñëw na di lay ndokkeel di lay wax ne la lépp loo xam ne man-manam la dooleem la ci loo xam ne dana taaral bés bi dana rafetal liggéey bi loolu mi ngi ci te lépp loo ko ne ay kàddu su paree ñu jox sëñ

su fekkee ne am na beneen politicien yuy def lii ñun de gisuñ ko waaye laa alhamdulilahi wa tabaraka allahu ngi doog a gis koo xam ne soroon di ñaan nga ñaanal ko yàlla yàlla dimbale ko ak ki muy jàppale yàlla may ko ndam moom tamit yàlla la yàlla yàggal na fi wér yàlla may la fan mu gudd lépp loo xam ne say mag yi fi jiitu woon nañ ko yàlla nga def lu ko ëpp damay wax ne sa xilaafa xilaafa ak alxuraan la xilaafa ak alxuraan la ndax nit alxuraan la damay nekk li benn xissa bu tuuti rek boo xam ne sama xarit sama doomi ndey Balaaji Muraadi Balaaji alxuraan moo ma ko nekk mu ne dafa mos a ànd ak yow juróom-ñaari at ci gannaaw ngeen di dox nga ne ko déglu Balaaji damaa bëgg nga ma surati Ibrahim mu koy xarit ñaan yàlla barki boobu yàlla na yàlla jox la karaam yàlla na yëf yi oyof lool te bul ci yëg dara lépp loo xam ne say mag defoon nañ ko rek yàlla nga def lu ko ëpp ñu ngi yaakaar loolu te ñu ngi tëwassul loolu ci barke yonent bi waaye ñu ngi sàkku tamit te xaasal Mouhamad Ndiaye rahma ndax mu ngi si sa njaboot di leen di uuf di dimbalante ak ñun jàppee wu ñu sax ay politiciens waaye daf ñoo jàppee ñun bokk ak ndey ak baay ay waxam loolu la ay yëngatoom loolu la bëgg ñoo guddal ndax jotaay bi mayewu ko ñu ngi gàttal su fekkee. ñu ngi gàtt allah nga xam ne toujours damay wax ne jotaay bu ñu fekkee rek jotaay ba taaw mbooloo wane lu may barkeelu borom bi rek lañ ciy sant maa ngi ànd ak comme ni ko Ousmane Fadi waxee léegi sa doomi bopp yi macha allah mel ni sëñ Aboubacar Cheikh Ahmed Tijani Moustapha sëñ Ahmed Dam Ahmed sëñ Ahmed Dam Ousmane Fadi Moustapha Mahi Serigne Aliou Diaw ambassadeur maa ngi ànd ak Papa Abdou maa ngi ànd ak nga jox ñu ko wax naa bëri point de presse bi doon def ma ne isne bi ñu jox moom bu ko kon ne lijaasa la dama naan ndax ndax jox nañu isne ne ma waxuma sax man waaye maa ngi ñaan yàlla sax jox la ndigal loolu nga xam ne joxoon nañu ko ñu ngi dox waaye ñu ngi sentir ne li ñuy dox am nañ ci ndigal parce que mbir boo koy dox la soxla mooy ne jël am na ndigal mm-hmm. dëgg biñ commencé dox ak bisam tey ñu ngi yëg ne li dox am nañ ci digal bu baax a baax a baax a baax tey nag mën nañoo bañ a guddal ndax kiñ seet si dafa nekk suñu baay avant sëriñ nekk suñu xarit avant sëriñ nekk suñu soppe avant sëriñ nekk tam exemple ci képp koo xam ne yaa ngi jéem a xam-xam gàmm gi yemb wala jaar fi mu war a jaar nan la ñuy def loolu rafet nan la ñuy def ko li nga soxla ci gàmm nga gis ko maa ngi wax ne ñun ñi nga xam ne dañoo nekk fii di liggéey ci turu wala ci keppaaru président Macky Sall nga xam ne bi gàmmu commencé di yoot pour teru nga joxe ndigal ci nañ def ci gàmmu ci nañu sa ñun ñëpp danañ taxaw ba lépp lu ñu war a def ba gàmmu gi mel ni mu war a mel ba jaar fi mu war a jaar ci lañuy jox ndigal nga bëggatul sax gis ñu ci capital bi nañ jege ci capital Faydal Tijaani bi saytu fu mbir yi toll di saytu fu nit ñi toll di saytu fu sëriñ bi toll sëriñ bi ma guddal parce que fii ñi fi nekk ñëpp tey ñun ñunu ne la rek say doomi bopp ñoo toogaan nii ci sa keppaar di ñëwaat di sàkku ceew ñaan pour li des ci diggante fee gàmm lépp li nga xam ne yittal la ci pays bi yittal la te sa yitte wax naa bari ki démb ci point de presse mu sëriñ bi yitteem ci gàmm lu leer la foo ko fekk ci mbedd mi laa ci kër gi la mën nga koo jël ndax yitteem mooy taxaw leen pour gàmm gi matale taxaw leen pour ëdëb ak ixtiraam bi nga xam ne moom la fayda bi laa bi def ko loolu rek mooy diggal li am am la du ndigal ay xaas leen am lay joxe ci amal la ko jox fu nekk jox ngi ñaan yàlla nga ñaanal ñu ba loolu président yaakaar ci ñun ko ci biir Kaolack nga ñaanal ñu may ñu kàttan boo xam dañ la loolu te wala wax naa ne am sa ngërëm dëgg xaqat mooy am ngërëmal bàyyi bu ñu amee ngërëmal bàyyi mën am liñ bëgg yëpp danañ ci jëm maa ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg ñëw jiite nga nekk fi nekk suñ ndimbal ndax suñ ndimbal nga nga te ñes benn frontière ci dara ci nit wax na ci ak yow rek jox ay solution yoo xam ne buñ ko toppee mën naa nekk askan bi dinañ jariñu réew mi dina ci gis boppam président bi yàlla def tey ci bopp réew mi dina gis boppam maa ngi ñaan yàlla yàlla bàyyi la fi ñu yàgg la fee fekk ñu yàgg ñëw digal waaye ñun tam ñu yàgg mën a def ndax loolu mooy suñu njëriñ di sant mbooleem njaboot yi nekk sa kanam nga xam ne ñoom itam wax dëgg yàlla lépp lu rafet rek sëriñ bi ñu koy def pour fexe ànd bi rafet pour fexe mbooloo mi gis seen ko ci mbir mi fan yi gàmm gi ñoom ñii ñëpp duñ la duñ la may benn yoon jàmm ci ne lu yenn ci moom si soxlaay pay dana ko faj balaa ngoon salli ala sayyidina bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. sëriñ bi nee nañ bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maa ngi lay présenté benn chérif suñu doom la chérif la. mu ne mi ngi lay présenté benn doomam chérif la. fekkee na sa jotaay bi fekkee na sa jotaay bi. maamam wàcc si jotaay bi. yàlla na barke maamam wàcc si jotaay bi. ñu am li ñuy sàkku ñun ñëpp. mun na dëgg-dëgg kontaanam amul baat bu ndax yëg bii sellal gii mbaax gi bëgg sa ëllëg dëgg-dëgg kenn mënta paase foofu te jëmmal nga ko yaag ñi nga àndal ñëpp ci seen taxawaay ñëwaatoon. bu yenentu ñëwaatoon. dina fekk ay soldaaram. yu mat sëkk soldaar. yoo xam ne bu joxoñee rek. dina xam ne am nga fi jabootam. am na fi ay soldaaram. loolu ngëneelu yàlla boo xam ne la. yàlla may na ko Sénégal. rawatina nag. ñi nga xam ne ñi ngi taxawu si guddi gi. ngir guddig mat ci jaayanteeg yonent jaayante bu mat sëkk mu mel ne dafa mel ne dañuy jàkkaarloog moom te loolu lu mu nekk la bi mu ne ngi gërëm seen ànd bii xale yi dëkk beeg ak yeneen xale ndax dooleel xale itee xale xam-xamu xale moo mun a tabax lu bees ginnaaw yéen a ngi ànd pour seen dëkk ànd pour seen réew sëriñ bi mu mi ngi ñaan yàlla ànd boobu yàlla na ci yàlla def barke barke boo xam ne dina tasaaroo ci senegal gi yëpp ñoo xam ne ñu ngi tuddee seen doom noonu la Kaolack àgg ci kawe ci ñoom kon nag seen Kaolack boobu war ngeen ko yëg bu baax a baax war ngeen ko dekkali bu baax baax te Kaolack mi ngi seen loxo bu leen neexee. dekkali mi ngi seen loxo bu leen neexee. dundal Kaolack mi ngi seen loxo bu leen neexee. naka la leen di neexee. yëg ne dañoo war a ànd. nag barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fan yii fanam la te dëgg-dëgg nit ñi nànk Sénégal ñoo nànk Sénégal wane nañ na ñun ñëpp ay soldaar yonent bi lañ ku nekk li nga mën def nga ko si guddi gii génne nga sa alal dem nga waxtaan ak nit ñi loo mën génn nga dund génne nga lu nekk ngir guddi gii àgg fa nga xam ne noonu la yonent bi mel seen xol yi yonentu kenn mënu ko dab ci teraanga loolu mbaaxu yàlla la ngëneelu yàlla la yàlla may ko Sénégal bu ngeen demee ci baye bi léegi Afrique ñëw fii ñëw senegal ndax gëm nañ ne buñ ñëwee Sénégal ci yonent seen soxla faju na ci yonent te loolu ngëneelu yàlla la bu yàlla may Sénégal yàlla na ko doomi senegal yi yëg ba sàmm ko yàlla na ko doomi senegal yi yëg ba langaamu si Sénégal na loolu rek la loolu rek lañ soxla gor gogu ni soxla te sëriñ bi mi ngi yakkar loolu mi ngi ci yow ak ñi nga andal ñep tamit sëriñ bi mu ne ngeen gëna yek seen bop rek ndax yek seen bop mo yek seen rew bu boba mun ngeen a yëkkati fu ngeen bëgg mu ag te Kaolack bu yëkkati ko rek Sénégal yëpp yëkkati ko na yàlla na yàlla yëkkati Kaolack ci seen loxo yàlla na yàlla barkeel Kaolack ci seen loxo li Kaolack ci seen loxo te mën ngeen ko nag ndax xale ngeen encore mi ndawa ah. ay fu mag ngeen bàyyeekoo famille yu mag yu rëy yoo xam ne famille lañ nga xam ne ñu doon defal démb ci taarix ba tey ñoo defal ci taarix yàlla yàlla taxaw leen yàlla yàlla barkeel leen yàlla yàlla dolli leen ci zahir ak ci baatil yàlla yàlla yëkkati leen tamit mi ngi fii ak yéen lépp looñ gis ne lu mu war a taxawee rek la bu leen ci dellu ginnaaw wax leen ko ko xëy na wax ne borom esprit bu mag la amul esprit bu màgget esprit gu Bes la am bu yemek sen esprit yi serigne bi neena na mën na am bu baakha baakha baax serigne bi mu mi ngi ñaan yalla bu baakha baax goor ak jigen mag ak ndaw ci Kaolack ci mbolo mi daje tey yalla ngeen seik nimbalu yalla yalla ngeen taseeg dimblele. feexu yalla yalla yalla dimbalé len len may ci adina ak ci alaxira serigne bi mu ne mi ngi président te lolu moy and ak kilifa Uras Info xibar yi gaaw te wóor Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu xóot te notre force le traitement de l'info